salaamaaleykum ah, allo. Eh. allo oui. allo. allo oui ça va. salaamaaleykum. salaam. waaw ah, Jaram na nga def. ça va euh, baal Régis s'il vous plaît est-ce may volume tuuti nga baal ma de nga baal ma tuuti. déggoo lu baax. Euh, nga waaw ma parce que ni ma ni ma lay dégg dafa xaw faible donc Régis. allo s'il vous plaît waaw. maa ngi lay dégg bu baax léegi. yaa dégg bu baax. waaw waaw. waaw ah. ah, mais day régler sa affaire yi waay waay. waaye <laughs> maa sànni xel tamit ñu ngi. bàyyi bàyyi bàyyi layam layam yi quoi. <laughs> waaye démb waaw xanaa nga jël ma ci suuf sax mais ñu nekk en direct nga may nga may dóor yi xar nii. non non il faut ma pour nga régler affaire yi. <laughs> waaw amul problème. yow yaa ngi encouragé di rafetlu liggéey bi. merci beaucoup kontaan ci bu baax a baax. alors euh, bëggoon naa àddu ci thèmes yi nga joxe ponk yi nga joxe bismillah xam nga waa Benno Bokk Yaakaar yàlla moo leen di weex ndax lépp lu ñu def dañ ko tegul ci yoon moo tax seen dara du mën a te du mën a du mën a sotti mhm. te te te te te amul coow mhm. ndax euh, ñoom ci seen biir ñooy indi violence te dañ ko doon jéem toujours opposition bi bi xam nañ ban camp la mhm. ndax lii amoon na ci seen permanence di affaire candidature yi mhm. kon ñoom violence lañ leen mën a xam lañ leen ma a xamee bon di ñaawlu aussi allo. oui yow rek la ñuy déglu. allo. waaw man ma ñoo ngi lay dégg saa de. allo. ay waay ñoo ngi koy dégg de ñoo ñoo ngi lay dégg sax de waaw xam naa kon mu dikkaat peut-être man nag man nag des fois <laughs> des fois nag li nga xamante noonu lay defee silence c'est quand même pour mieux vous laisser euh, ngeen exprimer wu parce waxtaan wi aussi yéen a ko moom su aajo ñu laaj leen poser leen question dañ leen koy daal di def donc mais loolu tax des fois may marqué benn silence bu ndaw bàyyi leen yéen ñi nga xam ne yéenay woote ngeen mën a euh, bu baax a baax seen idée soo su nekkee mu ngi may dégg alo waaw su nekkee moom mooy dégg mën na mën na mën na woote waat bon je sais nag lan moo tax je sais pas ndax réseau bi mooy daw ou pas mais bon maa ko doon dégg bu bu baax a baax na moom moom moom moom moom ma déggul donc réseau su nekkee mën nañ ko jotaat itam dana baax bu dina dana dana dana dana nekk lu lu baax ndax moom woon fa am solo doon daal di def jàngat ci euh, li nga xamante ne moo xewoon naka sàkkal waaye itam ñëw na sur de fee récents yi nga xamante ne amoon na laata sax ñuy rek daal di tànn u Ba ndax la xewoon ca permanence su Benno Bokk Yaakaar moo ngi ko doon fàttali oui. allo waaw Jérôme xam naa réseau bi la de. ah moonte de man de maa ngi dégg bu baax nag xaw ma nu mu fa demee noonu. waaw ah, dafa jékki-jékki dagg ko ah man maa ngi la doon dégg saa de xam nga comme ni mu koy expliquer rek xam nga des fois sooy sooy développé nii dama lay dama lay bëgg a déglu daal su aajo ma posé la question ma posé la question moo tax des fois damay marqué silence bu ndaw. ah d'accord d'accord ok. bon moom pour ma continuer di ñaawlu li nga xam ne moo xew mooy premier ministre war nga xam ne comme candidat dafa waroon démissionné ah. su fekkee ci démocratie lañ ne mm-hmm. bañ de l'état naan campagne damay dem euh, tournée économique <laughs> xam nga ñëpp xam ne nga dañuy def tournée économique mm-hmm. parce que campagne de budget la di utiliser les moyens de l'état les moyens de l'état mooy argent du contribuable Sénégal xam ne ñëpp ñoo ko bokk mm-hmm. nga di ko utiliser di def sa campagne Mm-hmm. loolu du dëkkatu yoon ñu ngi koy dénoncé mm-hmm. alors euh, pendant ce temps ñeneen ñi opposition bi fu ñu génne ñu bloqué leen mais loolu jaadu te loolu ñëpp ko war a dénoncé muy presse bi si civile bi ak les intellectuels honnêtes mais est-ce que mais est-ce que ñooñu war nañ dénoncé mais est-ce que loolu yow yow su nekk yow moom vraiment duma la ne émission bi ndax daanaka chaque semaine dinañ ci indi ñaar wala ñetti cas yoo xamante ne ci loolu lay wax ndax visite économique yi ñuy wax tournée économique yi ñuy wax président de la république moo ko daan def mais léegi premier ministre moo koy def euh, loolu sax ñu posé woon ci question ndax nekkul passation de service avant avant avant waaye itam ni nga xamante noonu lañ koy defee beneen bi ñuy daal di bloqué quand même des candidats de l'opposition est-ce que tamit mënuñu bàyyi ku ci nekk rek euh, waxtaan ak moom parce que ñooy tànn donc est-ce que loolu itam ñu bàyyi campagne déguisée bi te euh, ku ci nekk rek fi nga bëgg a dem seete fa say say euh, say euh, say militant wala sax. say militant tey moom nga ñoom nga bëgg a convaincre ñu wote la baa nga dem ñu bàyyi blocage yi. mais loolu loolu moom loolu moo war a am. ñoo ngi fàttaliku jamono yi nemmee ko tour am na ko ma ko message. voilà loolu moo war a am. Mhm. actuellement nii presque deux mille vingt quatre jot na ñëpp ñi nga xam ne am nañu ambition dañ leen war a bàyyi. Mhm. ñu wër dëkk bi waxtaan ak militants yi bis bu jotee nag mais sénégalais ñooy tànn. Mhm. mais moo naa ne man damay ñëw utiliser les moyens de l'état di campagne. Mhm. te ñu ne ci opposition bi ku génn nga bloqué ko. te loolu opposition bi ñoo war a taxaw société civile bi ñëpp ñoo war a tax taxaw ñu xeex loolu. mu dakk parce que bu dëgg du yoon jaay doole la ak def lu la neex. te lii buñ ko seetaanee mooy Macky Sall daf ñu bëgg a imposer Amadou Ba te Amadou Ba ñëpp xam nañ ne ci système bi la bokk ñëpp xam nañ ne war na mhm. ah yaa réseau baa ngi daw ah. allo waaw yëpp def déclaration de patrimoine état sénégalais alal ji mu yor fan la ko jëlee. Mhm. ndax un simple fonctionnaire yoroo entreprise yoroo dara waroo mën a nekk milliardaire. ah des fois dañuy nëbb seen ak beneen bi aussi di ñaawlu. <laughs> université bi nga xamante ne. ah oui il euh, ko. te loolu ñëpp ci war a wax. la presse. le faut vraiment. vraiment université pourquoi ñëwuñu ko tijji. Mhm. cela veut dire que am na lu ñu préparé. li ñu préparé mooy. élection yi narul tegu ci yoon buñ ko dee organiser te commissaire Thiendella Dalla Fall wane na wane na lépp wane na lépp ndax décision de justice mu ne du ko appliquer tegu ko fen tegu ko fen ay affaire tappale ak ay njuuj njaaj lii mooy xamal ne moom bu organiser élection ci sàcc ka la jëm sàccal ko waa APR ndax ñoom fa ñoom la àndal wane na ne moom damaa féete kon kooku il n'est pas crédible pour organiser des élections mm-hmm. no opposition bi taxaw ñu organ ñu exiger que ñu jox ñu organe indépendant comme nag Abdou Diouf defee woon mm-hmm. Abdoulaye Wade def ko mu organiser élection yi mm-hmm. Macky Sall moom su organiser élection yoo xamante ne normal na benn élection la mas a gagné mm-hmm. ah, réseau baa ngi daw ah réseau baa ngi daw réseau baa ngi daw mais merci quand même euh, merci merci bëggoon naa tamit nga wax un peu ci immigration clandestine ndax yow yaa nga bitim réew malheureusement yëf yi antuwul maa ngi koy gërëm di ko jaajëfal régie vraiment euh, gërëmal leen ma ko merci merci beaucoup ce n'est plus comme les années quatre vingt et quatre vingt dix ah le problème de l'immigration clandestine n'est pas uniquement économique ce ne sont euh, pas les plus pauvres qui partent c'est plus profond en plus l'Europe est saturée ça aussi il faut le dire mais l'Europe si l'Europe est Ibrahima loolu est-ce que sénégalais yi fi nekk wala africains yi de façon générale ñoom mën nañ gëm ne Europe dafa saturé ba ñi nga xam ne ñoo nekk Europe yow am nga ci ay mbokk man am naa ci ay mbokk keneen ak gis nañ seen kër yi ñu mel ñoo ngay tabax seen i kër yi ba ñu rafet ñoo ngay teggi étage ñoo ngay takk ñaar ak ñetti jabar xale ba gën a rafet koñ ba yow nga nopp ko sax euh, sa mbokk mi nga xam ne moo jóge Europe moo ko ñëw nanga ko say loxo takk ko donc est que du phénomène yooyu tey moo moo tax xale tu as parfaitement raison quand tu que euh, quand plus quand qui s'en vont parce tey ki nga xamante mën na dajale cinq cent six cent mille tey jox ko benn passeur pour mu ko yóbbu yóbbu ko Europe maanaam kooku kooku am na ci lu mu jàpp am na am na am na vraiment ci loo xamante ne moom jàpp na ko parce que su su mënu woon liggéey ba dajale cinq cent mille baax kon nu muy fayee nu muy fayee gaal aussi tamit euh, ni nga xam ne la noonu la voyage bi périlleux bi nga xamante ne moom la ñuy euh, amal fii ci Sénégal ndax ñun Sénégal moo ñu concerné Afrique de façon générale ndax politique yi ñuy doxalee ci réew mi ndax boddi wuñ ci jeunes ci ni nga xamante ne noonu lañ la war a jàppalee ci seen i ci seen i activité on parle de de formation mais est-ce que formation yi ñi ñi jox ndaw ñi est-ce que na ak li nga xamante ne moom la moom la suñu société soxla en matière de fonctionnement tey aussi ñi nga xamante ne ñoo ngi ci secteur primaire bi moom ñun suñu suñu la la partie des sénégalais vivent de ça lu tax mënuñu leen dooleel lu tax mécanicien bi nga xamante ne moom daanaka en matière de mécanique ah na façon liggéey bu nekk moteur moteur boo ko jox mu tas ko boo ko jox mu defar ko mais amul formation mais lu tax mënuñu leen def ay formation qualifiante mais aussi wutal ay place yu baax ñu liggéey ci au lieu ñuy dem ancienne piste di leen déguerpir du ñu wax ci yi nga xamante ne moo am ci réew mi itam on peut dire que ce sont euh, yi nga xamante ne moom la gis di ko joxoñ baaraamu tuuma yi nga xam ne moom la jeunes yi di di dund xëyu ndaw ñi xëyu ndaw ñi baax na mais xëyu ndaw yoo xam ne chaque jour projet mooy ngeen dem bale mbedd du ma du parce que aussi métier la comme les autres métier technicien la